di ancien membre ci daayira des élèves Talibé Baye Niass di lycée Seydina Limamou Laye waa tey daje bi euh, lu ñuy naan mbooloo moo gis lu ñu gën a bëgg la ñuy bëggee euh, ñu fi daje di ay taalibe Cheikh Ibrahim Niass nekk ci lycée bi ñoo am xalaat nañu daje ñoom jéem a jëmmal li nga xamante ni moom la seen sëriñ def ci ñoom loolu moo waral jotaayu daayira bi tey yàgg na nag waaye tey édition la ci biir édition yi wallahi mat na ñaar fukki at yu teg ñett presque euh, macha allah koo xamante ni moom kilifa bu mag boo xamante ni bokk nañ jamono ñun fekk nañ ko fi muy oustaz Ibrahima Mahmoud Diop di conférencier boo xamante ni àdduna bi yëpp moo ko xam kooku moo doon yàlla moo defoon daayira bi may ko oustaz mu ñuy defal chaque année conférence kooku moom jaar na fi gannaawam nag euh, ku ñuy naan as ay dara moo fi nekk jamono bi waaye kooku moom nekk na kilifa koo xamante ni macha allah te ñun ràññee nañ ko ci pay bi ñëpp ko ràññee ci àdduna bi yëpp laay wax sax kooku moom d'habitude moo doon bokk na sax niveau daayira bi moo ko yëkkati ndax fu ñu dégg ne oustaz ibrahim Mahmoud Diop moo fay def conférence rek dañ naan foofu bërëb bu du tuutiwul kon maa ngi fàttaliwu ci kooku noonu. non non sant yàlla côté administration bi wax dëgg fa yàlla sant yàlla lu tax ma ni sant yàlla la yàlla yàgg nañoo defal xéewal ndaxte amoon na ay jamono. dafa amoon benn professeur bu fi nekkoon bu tuddoon monsieur Seck benn surveillant la woon fii la nekkoon ci lycée bi dafa daan dimbali élèves yi lépp lu ñu daan soxla ci côté administration bi moom moo ko doon gérer moo nekkoon diggante taalibe yi ak administration bi ba ñun sax daawuñu sax xam nu muy demee ba ba ko fi yàlla jëlee indi fi ku ñuy naan monsieur caw kooku tamit liggéey fi loolu géey boo xam bu am solo macha allah kooku ba mu fi jógee tamit am na yeneen jaami yàlla yu fi nekk yoo xamante ni ñu ngi fi nekk di bay seen waar kon côté administration bi ñu ngi sant yàlla bu baax vraiment amuñu benn jafe saa suñu jàppee suñu dat wax leen ko dañ ci jàpp accompagner ñu ci lépp loo xamante ni ndimbal la vraiment côté boobu dañ leen di sant bu baax ñoom it ñu baax lañu. waa di sant yàlla ci xéewal bi nga xamante ni yàlla xéewalee nañu ko tey ndaxte bokk ci taalibe Cheikh bi Niass kese xéewal fa la mën a yem waxantu ak loolu yàlla dimbali la jox la natt bu gën ci natt yi muy liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass ci bërëb bi nga nekkoon ndax ñii fii lañ nekkoon ñun nekk ay élèves maa ngi fàttaliku depuis 2008 ñu ngi fi dem ba jamono nekkatuñ fi waaye dañuy ñëw ànd ak suñu raq yi mooy hôtesse yi nga gis nii ak ñeneen membres yi ñoom ñëpp ay élèves lañ fi la ñuy jànge kon mbégte la di wax élèves yi nañu góor góorlu dara gënul rëy liggéeyal Cheikh Ibrahim Niass nañ ci boole njàng mi boole ci fulla ak fayda xam ne lii moo gën lépp lu nit di def ci kaw suuf kon damay kontaan ci yow sëriñ bi Bécaye di kontaan ci yow bu baax di la ñaanal yàlla di ñaanal yàlla jàmm yàlla yu fi nekk yëpp yu fi jaar yëpp di wax ni kontaan nañu yàlla na jëm kanam di ñaanal conférencier mu agsi ci jàmm mu def conférence am ci jàmm yàlla may ñu jëriñu ci lépp luy xeetu xam-xam bu ciy génn salaamaaleykum wa rahmatullahi taala Anta Ngom maa ngi tudd antangom Ngom euh, euh, euh, avant tout maa ngi maa ngi remercier ñi ma marraine conférence bi Euh, ànd ak sama délégation sunu wa kër sama famille andak sama samay sama samay anti euh di leen remercier vraiment parce que li lu rëy la ci man euh benn yoon ñaarel yoon mo moy en tant que ancien membre daayira bi ma leen ci remercier encore une fois di leen wax ni kontaan naa ba kontaan fu kontaan yam wax deug yalla yaakaar nu woon ni toll naa noonu waaye alhamdulilah rabbil alamin loola li la bàyyi di wax boo ko liggéeyal rek mu fay la comme dañ nekkoon ci daara bi di liggéeyal bàyyi naa Cheikh Ibrahim Niass tey jii bu ñu ñëlee lii jox ma ko aadama ah ci sant yàlla bu baax a baax a baax maa ngi remercier ñi ma àndal muy sama waa famille samay collègues samay am di jàmm ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier vraiment loolu laa amoon ci lu ma wax ci honneur bi ñu ma defal Euh, sentiment de fierté là, hein, sentiment de fierté là, parce que euh, en tant que produit lycée Limamoulaye, je dirais même euh, euh, fierté là, mon ñëw delluwaat fi nga lycée momo defal lepp fi la seconde ba terminale série S2 yalla def ñu nekkoon ci daara bi di ci yëngatu bi ñu bac ñu dem université Chante Diop de Dakar plus précisément faculté des sciences économiques nek fa may téwul sa suné buñu yalla don yàlla défal ñu ñuy am tawfiq ak euh, jot sa suné ne ñu ñëw di euh and ak suñu rakk yi di len accompagner di len wax ni yoon bi ni la vraiment sentiment de fierté la ci am en tant que euh sama dernier mot moom moy euh, maa ngi remercier daire bi yop à travers sen présidente euh, Alimatou yaakaar naa su ma ko remercier remercier na mbolam daire bi yop

suñuy njëlbeen ay président bi doon ne waaye at yi yëpp ay président ñoo fi doon ñoo fi ne kon li muy tegtale mooy ne la jigéen ñi ñu ngi yëkkati seen itte di góorgóorlu di rëjërëj ñoom jigéen ñi ci sàkk kawe boobu ci sàkk mbaax boobu ba loolu moo leen may liñ am te bàyyi wax na ne wal bint kal ibnu kuuni mahrama falan taroo bi ngi te kuuni yow jigéen ji jëlal góor gi def ko mu nekk ci sa naaw yow jigéen binduñ la ngir lu ne rek ñu sotti lo binduñ la ngir lu xew rek ne ah bi muy jigéen a waaye dañ laa bind pour nga jël góor gi def ko muy sa nawle ndax amul benn daraja bu yàlla tuddal góor lu dul toftal na jigéen ci wet nga wane na ñoom ñaar ñëpp ñoo ci yemoo indal wal fukki mandarga yi jox góor ñëpp jox na ko jigéen ba wa dakirina allah kadira wa dakira même ci jëf man amila saalihan képp ku jëf jëf ju baax moo xam ni dakarin aw unsaana yàlla moo xam góor moo xam jigéen wala nuhyiyannahu hayaatan tayyiba dinaa la dundal dund bu tey bu yiw kon foofu it góor ak jigéen ñoo koy ku def safaan bay moo xam muy góor moo xam muy jigéen yàlla it wax na ne fayam mooy safara fayam mooy bugal ak yàlla kon li muy tegte la mooy góor ak jigéen ñoo yem ci wàllu yàlla su loolee yàlla amul góor amul jigéen Cheikhaani laaj na bàyyi bokkoon na ci ko laaj ndax jigéen dinañ ko def mu ndax yenn asraar yi ca sirrul fatiha ak yeneen yu mel ni ñoom ndax yell nañu jox ko jigéen bàyyi jàngal ko gàtt wax ko na ko taqdim yi ak askaar yi yooyu fa xasu aalifin loolu cërëb aalif moo xam muy góor moo xam muy jigéen waaye kon boo xasee ba nekk aarif rek lii sa ceeb loolu yaa ko moom kon foofu xoolatuñ góor xoolatuñ jigéen moo tax waxoon na sax ci bi muy mellal kan mooy aarif ba wax ne mooy ki jeex ci jëm yàlla ji jeex ci melo yi jeex ci tur yi bi mu ko tegtalee ba pare def na kooku mooy aarif sawaab nakar ak unsa moo xam muy góor moo xam muy jigéen kon yooyu maqaasid yi xasu aarifin kon jigéen ñi gis naa ne ñu ngi gën a góorgóorlu bay yelloo cër yi leen jox ñu ngi ñaan yàlla yàlla may leen ci ndombo tànk yu kawe kawe kawe ñu ngi gërëm it mboolem bi buy si élèves ak fekk na si ñu nit ci jëf di yëg ne ñun ñoo taxawee bés bi nii di gërëm it ak muqaddamul baraka Cheikh eh, Ahmed Boury Koundoul bi nga xam ne ñëpp xam nañ من المقدمة حضرة إبراهيم liggéey bu kaayam bi muy def waaye teraw lépp loo xam ne archive pays bi la mi ngi koy dajale ci jotaay yu mën di doon mën naa wax ne mbooleem durus yoo xam ne Oustaz Ibrahima Mahmoud jàngale na ko ay mbooleem tafasir yoo xam ne firi na ko téere borom xam-xam yi rawatina téere Mawlana Cheikh Ibrahima soo delloo da nga fekk moom marja la ci loolu lu bari ñu ko téye ak ñeneen ak ñeneen ci xew-xewi xadaral ibrahimiya ba ci jotaay yi te at mu jot mu nekk ak bi ngir den ci archive yooyu ëllëg ñii ji ay ay jaar yoo xam ne ñi ngi ñëw di suñu ginnaaw xam ñi leen jiitu woon ci liñ nekkoon bi jotaayu teraanga bi ñu ñëw ànd la ñoo kenn koo xam ne mag la ci yéen ndax ñëpp xam nañ ko Cheikh Ngërëm Diouf mi nga xam ne Cheikh Bekkaay tudd na ko sànq ci bi ñuy présenté ñun ak délégation bi ñu nekk nit koo xam ne bokk na ci grade bokkoon ci fédération étudiant daal di bàyyi bokkoon ci ñi nga xam ne jiite woon nañ ci jamono bi ñuy nekk étudiant biñ demee ba nekk ñu garaade du liggéey di créé grade bokk ci muy diplôme de taalibe Baay xalaatam ñu ngi ci biir liggéeyal Cheikh Ibrahim comme ni ngeen ko nekkee yéen élèves yi lépp it caawarteem ci ñëw ci fii bokk ci fàttali ko lim ne woon te ba léegi ñu ci di wax ne thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee loo